أسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي مبكي تلسبكتاتير LCS لا شين سنغاليز دل سوات نانيو اكيين تي سين بو مقبلي موي ييتي فتبارك الله نيو نوي لين زياره لين بالو لين حق بال لين حق نيان الله سبحانه وتعالى yàlla nañu dollee sa mbërtal ci géeju yërmandeem yi dollee ñoo yiiri tambalaanu suturaam yi bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu nuyu téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi yëpp ñi nga xam ne bu waxtu wi jotee amatuñu fenn soxla fu dul jàkkaarloog seen euh, télévision LCS la chaîne sénégalaise la télé passionnément ngir dàkk seen émission yeete ngir mën a jàng seen euh, alquran ginnaaw ba ñu jógee ci xuruful hijaiya yi muy lettres yi ñu wax leen ni nag euh, nekk fi di leen jàngal ay faërun janax ay xiir xirdun goloog yooyu yëpp baax na waaye am na lu gën a am importance te mooy jàng jàngatal leen euh, alquran su boobaa moo ëpp solo fa tabaarakallaahu ñu sant ñëpp ñi nga xam ne léeg-léeg ñu dajeek yow ci bërëb Euh, nuyu la jox la loxo rafetlu liggéey bi fa tabarakallahu booleeg ay ñaan ñu ngi ñaan yal na yàlla barkeel yépp bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam euh, nu yooyu nag suñu ñaari soppe yu foor ci ñun tabarakallahu kenn ki soxna Fatima Kunta la ñu koy wax ca Hann Bel-Air fa tabarakallahu euh, boole ñu ak ay njabootam ñu wettali konteeg ñoom Euh, ñuy jàngalante <laughs> waaw ak suñu papa Samba Gaye fa tabarakallahu ca parcelle unité vingt cinq ak tabarakallahu suñu maam ja ak sunu yaay ak ñaari njabootam yu baax yooyu le ñoom i tamit ñuy wettalikoon teg ñoom ci daara ji fa tabarakallahu ñu sant leen ñoom ñëpp gërëm leen lépp luñ jàngalante rek yal nañ ko yàlla dégguloo bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom suñu papa Samba Gaye foofa ca parcelle euh, Assainies unité 25 fa tabaarakallaahu jamono yi nag moo xam naa ne ku tudd parcelle maa rëdday taali <laughs> euh, rawatina la xew unité set waaw yal nañu yàlla musal ci Ebola moom daal yal nañ ci dégg doy rek fa tabaarakallaahu waaw na ni may rek dem yoonam <laughs> su ko defee euh, ñi ngi jàng gis nga fatihatul kitab euh, keroog aljuma foofu la yemoon jàngoon nañu suuratul fatihati makkiyatun loolu mooy signifié ni saaru fatiha makka la wàcc waaw maanaam suuratul fatihati saaru fatiha bi ñuy jàng ñu ne ah mu ne makkiyatun ko jug makka la bi maanaam makka la wàcc moom saar bi bi muy wàcc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba mi ngi fekk Moustapha mi ngi makkatal mukarram gàddaayagul dem madinatul munawar waaw moo tax saa boo gis ci alquran ñu ne suuratu nangam makkiyatun rek mooy ne bi muy wàcc ci rasulullahi booba Moustapha gàddaayagul dem Madina booba mi ngi màkk boo déggee ñu ne suuratu nangam madaniyatun ko jug Madina la booba Moustapha gàddaayee na màkka ba dem Madina foofa la wàcc loolu mooy signification bi bu ko defee bismillahi rahmani rahim waaw dangay ngay def liaison bi asmi a allahi nga def liaison bi bismillahi ken du wax bisimi waaw loolu la len waxone ken du wax bisimilahi déedéet bismillahi deng nga arrahmani mais bo taxawul da ngay defat liaison fii mooy hirrahmani bismillahi rrahmani dégg ar boo defee liaison encore nga ni arrahmanir rahimi muy bismillahir rahmanir rahim waaw euh, yéen a ngi en direct incha allahu taala numéro bi changé wul 88 la 628 17 27 88 628 17 27 da ngeen ñu jot incha allahu taala euh, suñu soppee soppee Seydouna Mouhamed Moussa Coulibaly moo nekk ci régie bi. Pape Samba moo nekk ci caméra bi tabarakallah léegi kii ala alif la woon lettre alif ñu mas ko fatha muy a laam dañ koy mas sukkuun dégg muy àll dégg nga léegi a ak àll boo ko boolee muy àll àll kii xaala xarfu lettre xaala mooy lettre bi mooy nekk nii ci biir nga maas ko fatxa muy xa kii miim la nga maas ko sukkuun muy am kii lettre dal la nga maas ko damma dégg nga muy du léegi danga naan a àll xa am du dégg nga a àll xa am du alhamdu gis nga ko alhamdu waaw kenn du wax alamdu da ngay gis sax ku naan alamdu alamdu alamdu moom kenn xamul lu mu doon amul firi alhamdu la ñuy wax mooy mbooleem xaaji cant yi ñeent mooy cant yi ñeent mooy sant gi yàlla sant boppam lay ka mislihi shay'un ak sant gi mu sant jaamam السلام عليكم نعم العبد إنه أواب السلام عليكم يا أستاذ ألو مليني سيارة ألو واني لن تسير ألو ألو مالي ديجا آه، دفع ملني أمو نرتور في آه، موسى ولا آه، تبارك الله نيو جيما سيت فوفو ناخ رتور بي دنگ كون دونك الحمدو الحمدو دنگ لاني واخ كين واخ الحمدو kii laam la nga mas kasra muy li beneen laam nga def ci shadda shadda bi wax naa leen ne day remplacer maska sukkuun muy comme bi mu nekk àll li àll nga mas fatxa muy laa li àllaa hi wa aleykum salaam wa sang bi tur bi naka la foo ñuy woowe maa ngi jégalu tur ah waaye sëriñ bi teg teg ñu ko teg ñu ko sarax rek. <laughs> waaw waaw maa ngi dëgg la ndeysaan dëgg la ta jégal nañu la tabaarkalla. jàng na ma rafet na. jazakallah anna xeyran incha allah. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di baax a baax. ku baax jërëjëf ndeysaan. di leen jël di leen ñaanal di sàkku ci ñaan. Ah, ah, amiin bu leen ñu fàtte yéen itam bu ñu fàttante incha allah. incha allah. yal na yàlla faj aajo yi yëpp. amiin amiin am na lu ma boo xam naa nag même fay ci waxtu yi tamit amul benn solo ni ñu julee ci bi rek. ah eh, bu ne nga ràññee na ma ko même bu xasee fay ci waxtu yi nag amul benn solo. baal ma dégguma bu baax. ni ñuy jullee ci yonent bi rek façon yi. waa ni ñuy jullee ci yonent bi. waaw même bu xasee ci waxtu yi tamit mën nañ la ko. jéem waaw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim loolu julli ci yonent bi la.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 Ah, dëgg la ndeysaan. waaw du wane woon du wane woon mais xam naa ne saa yu ma xëyee maa ngi téeméer. Mhm. ngoon maa a baax allah incha allah. yan ndeysaan incha allah. jëf kontaan nañu ku baax kontaan nañu. maa ngi waa àdduna yéene waa baax sax allah waaye boo ñu baaxee woon tur yi dana baax lool de. waaw incha allah incha allah <laughs> baax na incha allah incha allah waaw après daañu allah dinaa joxe numéro bi après incha allah. incha allah jazakallah xayran incha allah. Euh, ñu sant ko bu baax gërëm ko mbokk moomu kontaan ci contribution am mi ngoog 88 628 17 27. 88 vingt 17 27 fa tabaarakallaahu donc léegi alhamdu lillahi dégg nga loolu la ñuy wax maanaam alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillahi aji sax la ñeel yàlla maanaam sa cant yi yëpp ci yàlla lay dellu dégg yàlla moomu nga ni lettre ra ñu mas fatxa asalaamaaleykum waaleykum salaam. Ah, sang tur ak foo ñuy woowee. Ah, man la man la Samba Gueye. ah waaw papa papa Gueye Gueye Gueye Gueye <laughs> eh, la Gueye macha allah Gueye Gueye. ñoo ngi koy rafetlu bu baax. jë jazakallahu anna xeeran Gueye ndeysaan. tabaarakallahu gay jàngale bi muy bi ngay jàngal suñu doom ak parce que bi ngay teem bu baax ñu ngi la ji sant di la ñaanal yàlla yal na yàlla ko amin amin amin gay amin gay amin incha allah ndeysaan suñu xool sedd na mi ngi def ci doomu aadama yal na yàlla fay ma ko amin amin gay amin gay ñu bokk yéen itam yàlla fay na ko amin incha allah yal nañu yàlla barkeelal yëpp bu soobee yàlla kontaan nañu lool ci taxawaay bi itam vraiment. ak wallaay wallaay maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax. maa ngi leen di fay bu baax di kontaan ci ñoom bu baax jàmbaar lañu piir wax dëgg yàlla. waaw ah. tabaarakallaahu euh, gis nga xaaju Moussa ñu kontaan bu baax sant suñu wéjur boobu di suñu papa Samba gay foofa ca parcelle unité tabaarakallaahu euh, bàyyi ñu ak njabootam ngir ñu jàngalante ak ñoom xam naa ne ñoom sax ñooy sunuy ustaaz fa tabaarakallaahu waaye ñu jàmbaare lañu ñu euh, neex jàngal lañu macha allah allahuma la adduru yal na bu cat euh, topp incha allah macha allah tey dama tardé ñëw na leen sax d'accord naa ngeen alamaan ma wallaay ndeysaan waaye tardé luñu ma. ndax euh, li ñu leen jàngal def nañu itte fa tabaarakallaahu ba mokkal ko loolu lu am solo la xam nga ki ngay jàngal moom itam muy def volonté asalaamaaleykum. waaw ah, sëriñ Baal ñu nga yëkkati kàddu bi tuuti. ah. waaw ñu nga yëkkati kàddu gu tuuti daf xaw faible. Ah, eh, alhamdulilah bismillah. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. di tax bu baax dëgg la ndeysaan ku baax. incha tur bi naka la ak foo ñuy woowee. waaw ah, baal ah yaa ngi jégalu tur bi. waaw waaw waaw. tabaarakallah tabaarakallah. kontaan nañu bu baax ci woote bi macha allah. yal na yàlla yokk xam-xam amin bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xale yal na yàlla fëgg seen bopp ba xam-xam ba mën ci dugg amin yaa rabbal alamin amin ku baax amin amin incha allah ku baax waaw saar yi am na solo lool jazakallah anna xayran incha allah wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu lool yal na yàlla barkeel yal na yàlla fay la incha allahu taala wallaay ndeysaan dëgg mm-hmm. dëgg la mm-hmm. wallaay mm-hmm. euh, kontaan nañu bu baax ci mbokk moomu آه، يعني الله فيكويه بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 88-628-17-27 دنجا كون نيغوك الحمد لله دنجا را كي لتر با لا لتر با ندفتي دفتي شادة موميتام موي أب دنجا يواخ أب نغير شادة بي ñu soog a maas ci suuf kasra nga ni bi ab ak bi boo ko boolee muy ab bi ab bi ra ab bi muy rabbi rabbi kii ala ak àll muy a àll encore mais dangay ngay def liaison moom tam abi doo ko liiraale rab bi al aalamina loolu la woon rab rabbi al aalamina d'accord mais da ngay def liaison bi moom tam rabbil dangay ngay mel ni ku log alif bi doo ko liiraale wax ra ab bi àll muy rabbil kii ayin la ayin bu nekkee ci biir nii lañ koy bindee nga mas fatha muy a nga indi alif mu xëcc ko muy a dégg nga kii laam la ñu mas ko fatha muy la kii miim la ñu mas ko kasra muy mi nga indi yaa mu xëcc si ko muy mii kii lettre nuun la nga mas fatha muy na am na téere yoo xam ne dinañ indi tomb bi nii am na yu ko dul indi forme bi rek la ñuy indi mais yow boo yàggee ci téere yi di nga xam ne boo gisee form bi rek di nga xam ni nuun la war a doon donc rabbil aalamiina dégg nga rabbil aalamiina alhamdulillahi rabbil alamina dégg nga kenn du wax alamina alamina rabbil alamina ah ah rabbil alamin mooy boroom bindee fii moom sunu boroom alhamdu asalaamu aleykum wa rahmatullah ah ku baax tur bi ak foo ñuy woowee ah أسلم أسلم أشلم أشلم تبارك الله ah alaaji Gueye alaaji Gueye Rayan Bey alaaji Bey aslam alaaji Bey waaw alxaaji Bey HLM waaw asalaam waa kay waa kay Bey bismillah ñu ngi rafetlu xam-xam bi jërëjëf jërëjëf Bey incha allah yal na yàlla yokk xam-xam bi amin Bey amin Bey ñu ngi rafetlu émission bi baax a baax jërëjëf Bey suñ amoon ñaari mel ni wala mel yow dëgg la béy dëgg la béy dëgg la béy rek moo am sax wax yàlla dëgg la ndeysaan béy xam-xam moom xam-xam la xam la wallahi ndeysaan dëgg la Allah xam-xam moom boo ko xamee xam loo ko jëm wallaay amul njëriñ dëgg la wallaay dëgg la ndeysaan xam nga ñëpp mënuñoo bokk jàng dëgg la la xam ba kenn ci la de xam xale ak xale yi nga xam ne man na dañoo xool seen ndox ba ñu xamee wallaay ndeysaan dëgg la amin amin insha allah taala bi moo tax dañu wax ne boo nekkee ndaw da ngay góorgóorlu dëgg la dëgg la waaw dafa am bëri mag ñoo xam ne ñoo fay seen ndaw ba màgg mm, ndeysaan ndeysaan amul dara ci seen diine loolu baaxul wallaay dëgg la béy ndeysaan xale moom boo tollee xale jàngal bu ko defee nga jaamu yàlla ba ngay ndaw wallaay wallaay wallaay wallaay boo mën a bëri wallaay ndeysaan waaw jërëjëf jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax. yàlla na am fa yàlla na yàlla fa. amiin amiin amiin Bey allah incha allahu yàlla bu leen ko allah Bey incha ñu kontaan ci mbokk moom bu baax alxaaji Bey foofa ca HLM euh, ñu nuyu ko ak waa HLM yëpp euh, nuyuwaale suñu doomu bàjjan mu nga foofule alxaaji Mbay Fay. Euh, bokk ci jamaatul quran wa zikr bu imam Malick Sow ñu nuyu leen ak imam Jabel foofa ca HLM tabaarakallaahu 88 628 17 27 yéen ñiy recopier ba tey gis nga mën ngeen a recopier fa tabaarakallaahu waaye daal loolu lañuy wax kenn du wax alamdu ni leen ko waxee alamdu ak rabbil alamin ah, ah. waaw mi ngoog da wax euh, a all xa am du muy alhamdu li allahi lillahi ra ab bi gis nga shadda bi ñaari lettre baa ñoo fi waroon nekk ñu éliminer benn lettre bi indi shadda dégg nga muy ab ñu maas kasra muy ab bi ra ab bi àll aalamiina rabbil aalamiina alhamdulillahi rabbil aalamiina waaye bu ñuy jàng mën nañu wax alhamdulillahi rabbil aalamiin sentir nuun bi masque mel ni ko ko mas sukkuun waaw alhamdulillahi rabbil aalamiin au lieu nga ni alhamdulillahi rabbil aalamiina xam nga day naqaril njàng mi waaw loolu mooy tax mais alhamdulillahi rabbil aalamiin voilà léegi nga ni a ah, lam bi kenn du ko liiraale raa bi dafay am shadda muy ar nga mas fatxa muy arra Denga arra lettre bi dafa bokku ci hurufu chamsiye yi bu ci alif ak lam duggee lam bi lalu duko jang jàng benen domaine la grammaire la tabarakallah muy arra ah mim nga mas fatha muy ma nga indi alif mu xëcc ko muy ma nun bi gis nga nga mas kasra muy ni bu la neexee def tombu comme ni ma la waxoon bu la neexee bayyi ni amna yo xamni indi wuñ wa Rahmani dégg Angkor arra gis nga kii nga mas kasra hi indi yaa mu xëcc ko muy hi mim nga mas kasra muy mi denga fi nak bo da ngay def liaison parce que arra ahmani ar-rahmani a arra Ar Rahmani arrahimi waaye booy jàng da ngay def liaison fii muy arrahmanir arrahmanir rahimi mais doone arrahmani arrahim boo ko waxee baax na mais njàng mi day day naqari kenn du jànge noonu arrahmanir rahim asalaamualeykum maaleykum salaam ku baax tur yeeg foo ñuy woowe mbokk maa ngi ziar yàlla nangu ziar alhamdulillah allahumma amin amin amin fatiha bi rafet na eh, tur bi naka la ak foo ñuy woowee waaw man de maa ngi baalu yaa ngi jégalu tur bi ay ca bismillah waaw dama lay laaj waaw man su may tari fatiha sama lammiñ dafa xaw bëri du xaw ko nangol de baal ñu baal ñu may ñu tuuti retour mu eh, faible ah, yëkkatil kàddu gi tuuti mbokk boo jàng fatiha waaw waaw sama xaw a sa làmmiñ moo xaw a takk. waaw mais lor leer quoi may laaj ba ah d' accord tabaarakallah. waaw bu fekkee waaw bu fekkee ci sa làmmiñ la bu fekkee ci sa làmmiñ la sa làmmiñ moo takk. waaw loola euh, du am euh, problème parce que daloon na Bilal Ibnu Rabaax. ah d' accord waaw Bilal bu daan mënul woon wax ashhadu mënu ko woon wax. dafa daan wax ashhadu. Ah, waaw waaw te ba boo nee ashhadu mooy maa ngi seede. muy shiin su tooy ashhadu mooy maa ngi seede. mais boo euh, boo indiwul euh, ash nga ni ashadu mooy maa ngi fokk fokk mooy ñàkk nelaw guddi. waaw loolu dafay dafay am solo maanaam euh, booy jàng alquran surtout lettre boo yàq rek yàq nga signification bi leneen lay firi léegi. Ah, waaw léegi nag ñu di ko ñaawale yonent bi ne shiinu. معنى سين بلال شين عند الله واو يننتي بيتي لا دغ ني بلال نياك من واخ شينم جي دي واخ سين يالا شين لاكو جابي الو واو واو كي لولو لا مانا موم لامين موك منول واخ واو موتاخ يالا دوكو سي ريبروشي موم يالا شين لاي جابي باسكو بو ني اشهد ان لا اله الا الله لا واخ مي منول واخ اش مي اس لاي واخ اشهد waaw ah, d'accord nag day firi mooy maa ngi fokk maa ngi fokk mooy maa ngi ñàkk nelaw guddi dootul firi seede. <laughs> waaw loolu de. <laughs> walaay ndeysaan. mais dëgg la dëgg la mais bu fekkee nag euh, dangay jéem a jubbanti rek da ngay jéem a jubbanti rek li ciy des yëpp yàlla xam na moom incha allah. incha waa kay waa kay ku baax incha allah. ok. jazakallah anna xayran. mi ngoog tabaarakallah lu am solo la. am na ñoo xam ne ci seen làmmiñ la moo bindoo noonu tey boo leen doon wax loo fii ba suba ah da leen di rey waaye xa rek la wax waaw ah, am na ñu ko mënul wax <laughs> dégg nga su ko defee loolu la euh, arrahmanir rahimi muy arrahmanir rahimi dégg nga nga def miim maas fatha ma laam nga mas kasra li kaaf nga mas kasra ki ma li ki am na ñu indi maaliki def alif boo nee maliki baax na boo indiwul xëcc bi ne maliki baax na tabaarakallah euh, maa ngi ciy dégg euh, sëriñ Moustapha Sy ibnu Sayid si Ahmad Tijaan Sy Maktoum xalifatul aam taifa tariq Tijaaniya mu wax ci lu am solo maanaam boo nee maaliki day firi maaliki moo moom moom yàlla mais boo nee maliki mooy buuru te moom bi dafay mën na euh, dafay dugalaale ku moom rek tey bu fekkee tey mbub mi ma sol maa ko moom fa tabaarakallaahu day dugg ci maaliki mais boo nee maliki mooy buuru bésu payoor ba kooku yàlla rek la tabaarakallah waaw loolu yu am solo la duñ ci alquran nag am na ñu bind maliki am na ñu bind maliki boo ci jàng baax na fa tabaarakallah mais bokkul signification boo nee maliki yow mi diini moom moom bésu payoor ba yowmal xiyaam mais boo nee maliki yow mi diin mooy mooy buuru bésu payoor ba tabaarakallah kon mooy buuru bésu payoor ba moo gën a jagoo ak euh, tedd ngay sunu borom subhanahu wa waaw lu am solo la kon maliki ya aw mi add addi nga indi bi daf koy xëcc si muy addi nuun bi nga mas kasra muy nii dégg nga fii tam addi ni la waroon nekk dangay fekk téere yi ñuy def nii dégg mais da ngay def liaison moom itam yow mid diini waaw wax naa la bépp lettre loolu bàyyi leen ci xel mbokk yi bépp lettre boo xam ne alif ak laam daf koo jiitu lettre bi ñëw ñu shadda ko shadda mooy lii rek mooy dootoo liiraale laam ba dootoo ko liiraale lettre bi ci ginnaawam ngay boole bi taqaloog laam bi dóorante ko ci mi ak addiini nga ni middiini kon dootoo liiraale laam bi parce que lettre bi ci topp dañ koo shadda moo tax bokkul ak bii xam nga bii alif ñëw na ak laam mais ayin bi bokkul ci lettre yi ñuy shadda bu taqaloog alif ak laam ko kii daa bokk ci xuruful xamariya yi yii bokk ci xurufu chamsiya yi loolu grammaire la naxu moo koy jàngale kon bii mën ngaa liiraale àll bi parce que yaa ngi wax rabbil gis nga rabbil liir nga laam bi aalamiina parce que amul shadda kii nangul kenn kenn shadda ko mu taqaloog alif ak laam mais kii nag nangu na shadda bi moo tax doo liiraale àll bi mid rek ngay wax kon tabarakallahu mi ngoog euh, suratul fatihati makkiya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddiin yawmi ddiini waaw suuratul fatihati makkiya bismillahi rrahmani rrahim mën nga wax comme noonu suuratul fatihati makkiya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دنگ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تبارك الله na ni ñu ngi signalé ni تي وقت وي جيخنا fa tabarakallah ñu sant leen gërëm leen numéro téléphone bi 77 la 306 38 15 mooy sunu numéro téléphone 77 306 38 15 77 306 38